alors Idrissa Seck euh, dem euh, beaucoup de cadres yu mu écarte woon euh, commencé nekk au devant de la scène yow ñoom Souleymane Ndéné alors Macky Sall ñëw comment était vos vos relations Macky Sall mi ko remplacé. correct en tant que en tant que PM. l'avantage que j'ai en fait bi bi Macky Sall am ci ñun mooy yàlla dafa def bi mu ñëw en 89. Euh, ci la ñu njëkk a créé ce qu'on appelle la coordination des cadres parti démocratique sénégalais Cheikh Tidiane Touré Kader Sow Bayla Wane euh, Amadou Ndiaye pas mal de cadres hein euh, même ba c'est à cette époque que je l'ai dans le parti donc creuser boobu dañ amoon ak ma Masseck Ndiaye pour ne pas l'oublier yàlla na ko yàlla yërëm creuser boobu moo nekkoon vraiment la crème du parti à l'époque donc Macky ak ñooñu dañu am benn genre proximité c'est différent ak ñi nga xam ne ñoom seen légitimité lu ci ëpp ci président lañ koy jëlee directement donc Idrissa Seck Macky Sall euh, dafa ñëw nekk cadre adhéré ci partie bi fekk fa ay yeneen euh, nit ay cadre ànd ak yeneen cadre ñu ñëw loolu moo indi woon suñu proximité ak suñu relation relation yi mosul yàqu y compris bi crise bi di am contrairement à que ñu bari lu ñu bëgg a wax mais moom xam na man xam naa de toutes les façons. mais moom xam na moom xam na ñun ce qu'on retient c'est que l'essentiel du combat contre Macky Sall euh, <laughs> est depuis le depuis le cabinet politique de de de, de Ablaye Wade. c'est pas vrai. ah si euh, donc wax ñu moom lu ñu lu mu euh, xam ak ñun lu ñu bëgg a xam rek. Eh, may mun a. ñun loolu la ñu jàpp may mun a. da nga bëgg am may mun a waaw loolu nga bëgg xam nga man man amul langue de bois man sénégalais yi ñëpp xam nañ ne. fu ma dëgg fekk fa la may bàyyi am na ragalu ma wax dara peut-être réserve dina tax peut-être yenn yi mënuma ko wax ndax loolu mooy yoon. nit moo nekk mais am na loo xam ne ça relève de l'anecdote politique. moo tax ma ne la réserve yi am na yoo xam ne mënuma ko wax mais li nga xam ne mën naa ko wax mën naa ko wax pour nga comprendre euh, je lii ci li ma li ma li ma li ma foog parce que lu bari xaw ma ko quand même même bu fekkee maa ngi nekkoon ci cabinet ba euh, moom président Macky Sall xam na ne. Euh, bi crise bi amee woo naa ko yooni yoon mënu ma ko jot bi ma ko jotee fekk ndekk dafa demoon màkk bi mu ñëwee bi ma ko waxee li ma ko wax man xamoon naa li ma ko wax moom xam naa li ma tontu te la ma ko waxoon c'était de venir directement voir le président pour essayer d'arrondir les angles parce que li may sentir fii xeeñul lu neex la ma tontu moo indi en réalité sama rupture ak moom ci moment boobu. loolu jarul wax fii. mais mais lan moo tax loolu mën a Euh, wolof def ne nettali xuloo xuloo la te euh, par la suite euh, on s'est retrouvé sur cette question importante maanaam may mun a Macky Sall moo njëkk xam ne président Ablaye dafa ma nommé directeur de cabinet te Ablaye dafa ma waxoon bu ko wax kenn bu ko wax sa jabar Macky Sall moo njëkk a xam loolu ci Sénégal ak ak sama aqulay tàlla te li tax aussi mooy maa dem wax ko. yaa dem ko maa dem ba ca moom bureau maa jéggi <laughs> avenue Rum dem buroom wax ko li ma wax ak président ak la ma président wax ci lu baax ca moom ak lu tax mu woo ma ma nekk ci wetam. pour le rassurer parce que xamoon naa ne peut-être mënoon na jur le fait que du nekk premier ministre bu ko ko président waxee it man annoncé naa ko. il a quelque chose à voir ak kabal bi bi bi bi bi topp euh, sa nomination en tant que directeur de cabinet. Euh, non en réalité euh, mënuma ko jàppee noonu mais daal li ma xam mooy yow mi nga xam ne ñooñu ñooy sa xarit yow xam nga ci lu bari. ñooñu sama xarit. <laughs> xam nga da nga benn question ne est-ce que <laughs> président Macky Sall bu mu génnee nekkul premier ministre dem assemblée nationale. kabal euh, boobu noonu ñi ko fomante ak ñiñ ko doxal dama ne xam nga moo tax ngay poser question bi. non xaw ma damay euh, laajte. Euh, loolu loolu. pour moi xale laa woon j'étais même pas un journal j'étais même pas journaliste. waaw mais par la suite yàlla dimbali na ba say réseau yaatu lool nga tisser sa toile ba xamanteeg ñu bari kon lu bari mën nga ko xam ci réew mi je pense que ce important mooy. Euh, li xew entre 2007 sur ma nomination lépp ku ci defoon lu bon walla lu ñaaw bis bi ñu toll tey jàpp na yaa ngi koy regretter li tax ma xam ko mooy ñi ma ci xam ñëpp seen comportement à mon égard loolu doy na ma xam nga nit mun ngeen jaar ci ay péripéties ngeen dem ba jamono dëgg feeñ diggante bi eh, rafet ndax comportement Euh, man dama koy rafetlu lu démb dama koy fàtte ndax lu ma yàqal ci àddina mais mais mais mais xam nga tout se passe dans le cabinet politique du président de la République foofu la ñuy tëggee foofu la ñuy tëggee kaay foofu la ñuy tëggee yenn yenn complot politique da ngeen ko foog rek parce que c'est pas le rôle d'un directeur de cabinet du président c'est parce que loolu du rôle oui mais il est au loolu il est du temps léegi la il est au courant de quoi cabinet politique u parce que Macky dafa bëri ay cabinet politique mais cabinet politique yu Ablaye Wade ya ña ko sekkoon ñooñu dañ daan xam li xew foofu ma xëy na Macky Sall li taxoon mu tontu la tontu boobu euh, il savait que oui xam ma tontu en réalité xam ma tontu ah, la tontu mu ne ma yéen ma a ko mën atunu ma ne ko Macky mën c'était choqué. ma ne ko da nga lu ma la waxoon. bi ma président nommé da nga fàtte li ma la waxoon bi ma président nommé mu ne ma en tout cas bon j'étais obligé de raccrocher donc ji li xew ci ab kër cabinet Abdoulaye Wade en réalité loo xam ne bokkul ak intérêt parti démocratique sénégalais. c'est dans la périphérie du parti la jógee dugg ci cabinet bi. ah mais kan moo woo Sada Ndiaye pardon pardon. moo woo Sada Ndiaye porté loo ko loi bi ñan ñoo tëgg mbir mi. xanaa dégg ci cabinet pas du tout pas du tout su amee it jamono boobu euh, xamal ne man euh, maa ngi woon ci biir cabinet ba enfin maa ngi fa nekk 2007 2008 2009 Macky Sall bi muy génn ci parti démocratique sénégalais. man génn naa cabinet président Abdoulaye xam lu tax mag Macky def na élection ba gagné mairie tu te rappelles. Mhm. Fatick. 2009 avec Dekkal man ma nekk euh, conseil départemental Kaffrine conseil régional Kaffrine kon j'étais plus dans le mais li ma wóor mooy euh, l'histoire politique dina mës leeral te Macky Sall moo la gën a xam loolu lan moo indi en réalité crise bi am ci diggante boobu ndax li ma ci xam man mooy. bi ma président Abdoulaye di yónnee lettre bi nga xam ne dañ ko bind pour wax ko affaire audition bi euh, bi ma ko jàngitee fekk muy dem Popenguine maa ngi dem Kaffrine dama ko woo wax ko ne ko lettre bii ma liir xam naa machine bi ko bind xam naa ki ko bind parce que je connais style kooku nu muy bindee xam naa caractères yi nga xam ne lettres yi ñu doon échangé ma ak moom. kan la woon euh, euh, jarul tudd. c'est après qu'il l'a su bul fàtte ne. am na au moins une vérité ma du Seck ñàkkul moom may déglu moom comme il est en vie toog nañu réunion président ne ko heureusement yow afrin bokk nekkoo ci dara pourtant c'était la commission des finances mais Mamadou Seck n'était en rien impliqué enfin n'était pas l'auteur de cette affaire peut-être c'était du zèle d'une personne qui pensait que Euh, c'était lu baax la woon pour que Karim Wade ñëw expliquer wu par rapport ak ses bons projets ak li muy liggéey au niveau de l'ANOCI bref en tout état de cause euh, euh, la crise bi nga xam ne moo nekk diggante président Macky ak président Abdoulaye Wade génnewul biir cabinet bi génnewul ci président de la République quand je dis présidence mooy cabinet ndax à l'époque cabinet administratif moo ak le cabinet politique te xam naa euh, ci ci ci ci ci mujjeen mujjeental gi quels étaient les acteurs réellement ci dossier boobu nga xam ne moo concerné le président Macky Sall donc mais tout ça c'est de l'histoire pour moi et la jàpp nga ne c'est un complot qu'on a ourdi contre lui. li ma mën a certifier mooy Macky Sall n'est pas l'auteur de maanaam du moom moo sooke convoqué mooy benn loolu leer na ma donc et le président dem na ba xam loolu et xamoon naa aussi ne président Abdoulaye Wade tolloon na jamono dossier boobu da ci bëggoon génne loxoom. leer na ma li tax ma wax la loolu mooy. yaa ngi fàttaliku ñu naan sëriñ Nangam ànd nag euh, Macky Sall pour mu ñëw. Euh, Baalu Baalu. yooyu yëpp c'était une façon de régler le problème rek maanaam galgal politique rek la woon pour man mais boobu lobby yi ñoo gënoon a fort. Euh, lobby yi foor nañ ba bi Ablaye di perdre pouvoir les lobby étaient très forts et tu en sais quelque chose. alors euh, Babacar Gaye alors. et puis dañ bàyyi. wax boobu nga xam ne c'est l'histoire quand tu ma boo ma lire dans mes mémoires euh, dans mes mémoires ji nga li nga may li nga may poser des questions ah. Ah. écrit ah, mais le témoignage euh, il est important alors il est très sincère voilà